Dakar doyal nañ si donc il faut à la place qu'il faut pour un Dakar émergent c'est du sang wañaw wañaw mafia bi na dem na dem a dem a dem dem a dem dem a dem na ñu dem a dem a dem Moussa na ñëw wañaw wañaw wañaw mafia ah Dakar bu bees sàgginul ne bi fi newoon du Dakar bi fi newoon Dakar la mais dafa am ño xamé en 2014 dañu ñew né ñu jox leen Dakar dañ ngay taxaw ah yéen li ngeen gis Zahra Iyane Thiam démontré ko légui plus de 600 milliards de budget cumulé boobu ba légui mënuñ si taxawal dara lu askan bi teg seen loxo gis ko ñu taxawuñu Dakar dañoo tardel Dakar bon dëgg waa tardel Dakar moo tax ñun ñu ne Dakar bu bees Dakar bu bees la lay indi Saliou wax na ko léegi pencoo la indi lu ñuy wax gouvernance bu bees inclusivité yenn waa Sicap waa Yoff waa Cambérène

boo ñëwee sa maire dana la gunge par un fonds boo xamante ne day jëriñ les Dakaroises les Dakarois te liñ leen si tegal day mel ni tegaluñ si dara. Mm-hmm. loolu mooy jàppale sa askan.